assalamu alaykum wa rahmatullah mbokay ñoo sétane fi ci Sahel Network TV man la sen xarit sen dom di Abdoulaye Souare ñu ñëwaat ci benen word on the street muy waxtani mbeda bi tay na dama doon dox rek dajé rek suma benn way suma broda ko xam Gambia ñepp ko xam Banjul ñepp ko like fo dem si Banjul lek so waxé turam rek ñepp dañ dé contane ma bay leen mu introduce bopam mu ngi ni tok si suma bor Bro, kan enak-enak. Ah, ya wiru wi bubah, bubah. Turbin. Man Musa Marong. Komani nun as. Radi Mus. Radi ni nama nala. Bila Malarau, Malarau. Eh, Radi. Malarau, raw, bubah. So still now Gambia be beko up still now. Malu maji suma idea. Still now Gambia ni ngay nelaw. Baro. Baro trial nga def something. So ñu tek la fi. Nit yalla fi tek suñu nga pour nga dimbale Gambian si distabulo fi ben imam distabulo fi ben maire distabulo fi ben pa wone tamit dafa dess sa projet yi dafa war a gaaw ñew tay mu la may dafa sot pour nga mëna def somtin wone da nga wara try pour def somtin ñu ne baro bayina fi somtin lu ya jëmee lu bon bonul bayina fi dara de bayina fi dara de jangula la reekati nit la wone somtin be hayn Gambia distab na sun imam yi na maire yi na pabi sina fi ah, jangulas jàngulas mu Baba jo mo fi isi jàngulas man suma idea do Yaya Jammeh bu mo ubi mon sob Senegambia nde president moro c'est en dunia o kañi i kam fate kanale to nya toñalete e ko sa sabo be jila limon ji five years nata so alhamdulillah bil alamin when five years finish someone someone take over and you step down and ni yewu tenung e be tela hiroti Gambia to ni jitanu nung sañi sabo kono e be tela hiroti Gambia anywhere bita damin to ɓe ɓe gardlan anywhere bita europe ɓe ɓe bulele noma bari ɓe hasidi yala côté jila a dimita a dimita bañin kol ni laftela i laftelal ni man lafila e man lafila yo ye moy bace de e dongol fo lafta jelal nunga meta atara fo kari woro e man jenno nte radi mus you know musa morong tawakurut edward ewar street ngal konton gambia be gambia be stilna be sinola stilna gambia be sinola dama fo Iya, ji do yesi bare try ya gambia dada gambia dada ni adada dorong ibe mera gambia la but ni ma dada you step down so one take five years so one take ten years and everything inshallah dunia kan ni la laftela tela man ñu fa de dunia la ni la tela ni man la fila e man la fila ndol me wala nyama you know so alhamdulillah bil alamin in this government nke minister be konton nke minister be konton so out of boys wol be wol ɓe siring yudman wol ɓe e eman tara dow kola ɓe mutala ɓe sambala ɓe sambala ɓe time westla so fo yudman on se kam fa fo se kam fa fe mom bete ya something possible nothing is not possible you know and then compound is there you know dépasse omon oret mon mon tamiro chono so adiamo siata mo jigidela kabri sida sansa ya protégement program te boya fo mole ani gambia deda ni gambia deda eto be eto be to sa but ni man gambia deda you step down to be frank you sol man do go soto e eh be sim be ka fo you sol man em solo you sol em solo kata tu abdu be ko dol natire be moro be moro findi la poro ko do ko do be dum poro ko no so something you do something man boy mr president baro anytime you want to see me take your guard and i want to talk to you and i know gambia you know many people like you and they like you When they don't like you, they don't ever like you. Malo fo yo lonne. President Baro. So a try janin sanyi lolo be banna. Ye ye factory lolo jang, ye hospital lolo jang, ye ye ye kuja malo jang. Isa fo a nyaonya ay fembula jane. Ya jeme tilmbaya abe mo fala abe abe koltela abe mol dun laj bu njawol kono ay ay loya dawo bodalik. Sanyi jelo. Loya dawo sayang ama fanna fano. Yes. Mr. Lawyer Dabo. ye nka kuma foye dɛ nuko naalo nuko abe abe abe loya fala nun kasoto bari a loya ala ya ma koy kila moto fo ya jebe ma fa kasoto so den wo na try na try mr president baro e mo disrespect ema ma mo tonye e ma mo banen bari thinks your workers they are slow not project mol mon fenje you know they fool people and you should be sharing amantie koinati amantie farafeñeti amante baseti amantie kawurti amantie anywhere this gambia ama easy ama easy bace so ye hakkilo tu bace señi sañilolo eɓe sila e lafta président se alma ni ye président ya mam te mote jindilano ala demal ɓe jindilano koɗo kana koɗo kana koɗo kana ha koɗo jama baɓe gambia ye tili ani alala alala e sindi jang So they telling the all of the motor they stop la. You know, you get minister, you get your secretary, you get your advisor. You get your advisor. Mr. President Barrow. You know? Ni o chedo rong, alhamdulillah bil aramin. Gambia, mol jama be ma ko la. Bari ni ko man bori do rong, pour tirer man bori do rong. You you step down. Yeah, you step down. Legi mus. Mus legi yow. lan soo nekkoon tey su la président jëloon tey président Adama Barrow. waaw su la jëloon tey def la adviser. waaw lan nga koo advice dama ko ne mu liggéey réew mu liggéey réew ana tey Hadim Hadim Gaye Hadim Gaye ñun façon yooyu leen soxla Hadim Gaye mee na non it's something Hadim Gaye ah ah, ah. that man is straight that man is straight akibe sometime I mana sulol be deda ah. you know so ñinem duniyati ni adeda do dong mol be ma ko laal but di ma deda de throw you out to be frank man Mr. President Barrow. You know, didn't guy be na sita lafta mol la mol ba Because ba want to que ay mona I'm dada ama findi na I could do kon after told ba return lal. Al ba jolap. You know, the papers work and the papers they going anywhere. So ye mira ninti ninti arrest ni jita. Esa fall ask you question. How many years in in president? Five years. You know, I fall they follow you for last to end. You know, imamo distop imamo bane imamo sorong imamo fa so alhamdulillah bil alamin kono e finti compagnie ole bori you know things ole bori you know ama easy de be go fo men contena bache yes ali atray ali atray ali atray ale mol ta fana ale advice wala moy al kale ye kale advice la moy pa president bal dabni ya jebe benun gambia dabe gameru la no no one can advise that man that fucking man that ya jeme now is regret So don't try you regret. And also ya Yajime regret and President Barrow regret. Oh, is, oh, oh, is a ah, ah, Dimitale. Oh, a ah, Dimitale. So, Mwalbe Bunyala, Mwalbe Tangsa, Aning ceroka na Imamo, Alma Alaya Mende Jamol Kang. ceroka, Alma Alaya Jo Kila. Legi Mus, Mus, Legi Porbi, anu nyu know si Porbi, Mus. boy bari ñu ngi si port bi waaw am na ñoo xam ne sa staffuñ leen maanaam daal jëluñ leen dañ leen jël contrat pour ñu lan nga am puy wax MD bi nga xam fa nekk nga xam koo xam ne maa ngi fa am suma benn broda xëy na yow am nga fa sa xarit xam ne ay five years ñu ngi fa staff ñu leen lan nga am puy wax si loolu dafa doy waar loolu lan nga am puy wax dafa doy waar dégg nga léegi lan nga am puy yóbbante MD moom na try seet nu mu fa doxalee moom tam am na ko moo liggéeyal foofu keneen tam ligaal ko fa xam nga lu ma miin so MD bi nga déglu ma bu baax ñooñu ñooñu noonu Huh? They want to work and they get your salary because it's not easy. To be frank, but don't fool no one. When you fool the people and your boss will fool you. So then, straight, you know, Mr. Radi must talk to you. And then you humble. Any humble people like you. When you don't humble, no one can like you. Of course, because you know one fool, you don't, you don't fool no one Gambia high. Because I think so Gambia, still now Gambia don't wake up. They didn't wake up. people they're celibate at all. Still now they don't wake up. I don't know. This human being. Well, thanks Gambia, why? Okay. waaw léegi Mouss yaa ngi woon ne Gambia yi wake up loolu dëgg Degala, I'm not sure ñoo xam wake up buñ ba léegi xaw ñu eewu xaw ñu ñoo eewu still now ñu ngi neloo benn tey suñu dëkk bi yow balaa balaa balaa balaa ñun I think so doomi citizen moo war a toog si réew bi wala yi nga xam ne foreigner la dafa métti waay ñun ñun suñ koto yi suñ papa yi indien nun eno isiunde ñun ñu war seeɗat maasi Yaya Jammeh Yaya Jammeh juɗo fi the same thing rule na fi 22 years 22 years mu ngay rey nit yi rek ku soola rek mune ne la mu rey lan on système rey na ko eno mu nit ñi leen def fexe ba rey Baba si kaso bi eno ñoom ñoom si seen bopp jël on brodam moom Yaya jeme pour ñu rey sa waay bu ne ko ma ne something Tamba I forget him something Tamba pour rey yaay pour rey si kaso bi di ko jox lekka Baba Diop three days yaramam di néewi di am ay picca picca gars yi yaay si hospital bi naaw bi ñoo Rambo dem taka baatam rey ko waaye amul ku gay rey this judgment is there so I thanks Gambia I thanks all governments I thanks all hospital I thanks all imams I thanks all secretary for Gambia. léegi ñu ñëwaat si euh, youth si banjuli yi youth si Gambia youth si banjuli. they didn't get job. Mr. Barrow still now you still Call the people and people job and you pay the salary. People they contact. Use their, they, because they use their, they fed up. You early, you wake up early in the morning, you, you meet five dollars in your pocket. you too stressed. You know? So the, the, the money is going to the other side. I don't care that one, the Donor squad. I don't care him. Don't disturb my life. You know, so it's good there. doo mun a am looy ndeewoo doo mun a am looy reeree eh. soo lee soo oh, ndeewoo doo reer doo añ soo dafa métti xam nga den dimbale yuut si. léegi mu den dimbale yuut si. waaw Mouss léegi ñu ñëwaat si yuut si la ñoo ñëwaat. waaw yuut si Mouss. Hmm. si yow sa maas ak ñeneen ak ñeneen. ñu ngi dóor waar. léegi soo ko bàyyee xel Mouss ah waxtaan wa digga si la bokka. 16 hmm. years léegi Mouss ñooy puun. na loolu lu right la. du right. lan nga am kuy wax ñu xale yooyu nga xam ne incha dañu war a dem ñoom ñoo war a nekkal leaders of tomorrow. ndax ñoom tam soo yëgee di toog. Ah, liggéey amut. waaw liggéey amut baro la fooroo bi compagnie bari. compagnie daw xale yi duñ toog. xale yi ñëpp am em yuur si ñëpp am kenn amul si eh, kenn nga xam ne ñu ne kii amul em wax loo dëgg su moon joob dafa eewu di dem liggéeyi ñoom ñëpp am em yuur si ñëpp am em. ba ba ñu si nekk si kaso bi sax day am em ñun si seen rajo yi They aim. So not try them project company be ubik more than 52 companies in Gambia sampa. Yan fashion company nga bu. Any am market am hospital bi sung hospital be fal tol be bada tamit ñu Daniel kaso bi kaso bi yàgg na more than 65 years. You know? bi yàgg na ñu liggéey kaso bi return yëpp lawyer da mu fa woon still na mu ta toog waxtaan nit yi wone ne kaso bi ba baaxul lekka ñoo lekka bu baaxul be a nit yaa ngi fanaan si wanag bi dafa doy waar. You so baro oro atira e ya dunia deda mole sindija mole kartodila atira e ya dunia deda ima mo disrespect no one can disrespect you and you focus and you do your job someone advise you every time you get advice alhamdulillah bi aramin so thanks gambia thanks for my family thanks for my boys thanks for my youth and thanks my usman suare thank you most the most mm, mm, mm. you over cool bro non Moos dëgg dëgg jàmbaar nga. dëgg weer mooy maa ngi si maa ngi sa gannaaw. waaw maa ngi sa gannaaw. maa ngi sa gannaaw ku mën a football nga. benn tey maa ngi si gaawam aw ma aw ma time rek. amuloo time aw ma time wante tennis waaye tennis rek laa amoon. waaw léegi Moos naka nga gisee Banjul naka la mel léegi. c'est vrai wala tilim yi ah. waaw léegi lan nga am buy wax gars yi. booy si booy si ba pare maa ngi tànk si rugi loo tamit. Ah. maa ngi koo tànk si doomi maa ngi li loo moom Papa Mbala moo jëne àdduna bàyyi na fi dara. Hmm. Alice lu mu bon bon ne bàyyi na fi street light so rugi lu ma ko bëgg a woon moom tam mu mun a try sojet bi mu mun a fee bàyyi dara lu mu ko mun a seetee rugiloo suma nit la ko bah la gore bah, xam nga lu ma mbalit yaa ñow bul wari sa mbali yaa ngi ñow moto moto ya ngi ñow ñi ngi ñow mais nah, ñu sotta mi re wan mon bi re nga gis différent bi différent bi rugi jigen la dé bu ngeen tray bu ba ma ngi koo santa ma ngi koo gërëm waaw maa ngi li ligé liggéeykat yi tam ñoo Elba ñoom Piayo ñong ñong ñong ñong cham you know ñong el ñong jesi you know waaw léegi léegi léegi léegi léegi muus bala ñoo dem ah programme bi mu ngi tudda word on the street muy waxtaani mbeeda bi dañ dee ñoo fekk booy yi toog ñu tànn benn topic comme ni ñu la fekkee yaa ngi toog ak booy yi lan nga am puy wax Gambian si lan nga am puy wax waa Banjul ñi nga xam ne ñoo seetaan programme bi lan nga am puy wax gars yi ah yaa ngi ne programme bi ni mu ngi ni waaw Sahel Network TV la waaw léegi ma bàyyi nga waxtaan ak gars yi waaw affaire di programme bi muy woot on the street lan nga am puy wax gaay ga gaa ngi ni daal maa ngi woon gaay rek pour ñun tam rek fas yéene toog mun a def something parce que tamit toog nii rek neen rek du loolu moom daf laa yóbbu dafa yóbbu iñaan toog defuloo dara rek foog nga iñaan xam nga ma men square de frère yow muy def dara soo doo mun a iñaanee kenn soo su mu ne am lu ñoo lu ñoo jàppa di def nga am ne boy boy du nasa boy jàmbaar leen booy am na su lu leen dugal du seen interne sax pour gars def ko masih ci la loy duma war rek lu len dugal du sey intel su gaa amon lenen kan? dañu faté li di job di ñëw di dem di ñëw ma nga gërem yursi bu ba yursi mom dal amon lu ma leen wax yur si jàmbaarkat leen waaw beneen tam semestre yi ñu ngay tray di fi dugal halis di fi génne di isi halis di fi dugal moto di ni leen tax tax di leen pay tax ñu ngay fay wa ma tax ma tax gay ma tax gay bu baax jërëjëf bro kontaan naa trop. wa léegi mous bàyyi ma bàyyi la nga defal ñu promo puy programme bi programme baa ngi tudda word on the street waaw word on the street waaw so léegi loolu la bop yi nga defal ñu ben pro moy manam dal woné né programme baa ngi Gambian ci ya ngay ñaan Gambian ci yépp ñu sétan programme bi après ñu subscribe Sahel Network TV word on the street word on the street baye na la waaw ya hmm. thank you yes bale naa ñaan yëpp boy si so walk on the street, you know. So Malena Nyan Buba walk on the street, man rally Moos. Bulen tit, bulen ragal. Wow, bulen tit, bulen ragal. Amu yenga tusa, fisun filen judo. So follow your them, filen your talk. Wow, filen judo, yero fi. You know, thank you very much. You know, walk on the street. Watan imbera bi. Mangini, free be. Wow, mangi wal. maa ngi waa suma gars yi suma jur si yaa ngi nii ba afta yi ba fu nekk ba primate ba dof ba pare na gars subscribe na gars subscribe word on the street on Sahel network word on the street on Sahel on TV yes man bilaay maa ngi bég si nag booy si yaa ngi nii ñoom ñëpp a ngi nii di ma seetaan waaw amul ku ma seetaanul ena amul ku ma seetaanul mu ngi nii man Rally Moss ah. maa ngi gërëm seen tam ak seen boos yi leen feeñee ñëpp ena bég naa trop man Rally you know bég naa trop man bilaay xoolal talaxi you know is it you raadi Moussa su ma su ma dofee rek yaa de yow dof su ma folostiree rek de yow folostiree wante maa ngi conscience ànd ak suma soxla gi you maa leen naa gërëm dégg nga di leen fay di waxa suñu jiite ak ay ji tam maa ngi koo gërëm ku baax la am soxla la ku am été nit la waaw jàppale doomi adama yu bari loolu tam am ay ji nii maa ngi nuyu itam gars Gam TV maa ne maa ngi naa gërëm bu baax di gërëm boss bi tamit di gërëm manager yi you know thank you very much thank you very much yes wa thank you bro